gis ngeen tey de maa ngi fi fas de laay dawal lii de xam ngeen ne fii rek la am laa ñëw seet si yéeg ci fas bi. jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen jaajëfal tey di leen wax ne ñoo ngi fii Lansar seet si ki nga xamante ni mooy Siteu Siteu tey war def li nga xamante ni mooy point de presse ma ko waxee mooy presse bi la fi soxla waxtaan ak ñoom waxtaan jëm ci làmb ji ak wàccaay li la toll ak naka la war waajee digganteem ak Papa Sow ndax démb mbokk yi bàyyi ji li demaloon na leen fi ngeen xamante ni mooy parcelle euh, bese yaawoo seet si ki nga xamante mooy Papa Sow dégg nañ kàddu yoom fa jot a wax dégg nañ na ma waajee ak la mu na a waaja Siteu tey nag ñoo ngi fii ci Lansar seet si ki nga xamante ni mooy Siteu bëgg waxtaan ak moom ci combat bi bëgg waxtaan ak moom naka la waajee combat bi ma ànd ak aadama lépp loo xamante ne am na fi rek euh, ci wàllum entraînement ak la ma war jokkalante ak Papa Sow dañ leen koy dëgtal ba mu mat sëkk di leen jox dig daje ci kanam tuuti tuuti léegi léegi gars yi ci kanam. salaamaaleykum jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul maa ngi siyaar ñëpp di bëggee ñëpp di nuyu àdduna di nuyu bi ma dëkk di nuyu sama sëriñ sëriñ Sidi Mbacke Alxuraan di nuyu Fole Séeréer nuwana le o séeréer mi gidmam lem nga o ɓinu no ndogor nuno nda nuun mi andun bo faya boo bona jerfane fof mi simna den no aɗa no séréer rek mi simnan waaw waaw Siteu ginnaaw bu ñu la nuyoo ba pare fekk nañu la ci sa entraînement combat bi nag nga koy bi nga xamante ne mooy am nga foofu muy ngay njool muy ndaam waaw maa ngi koy préparé ak samay course maa ngi koy préparé ak sama waa écrit waaw maa ngi jàng daal li nga xamante ne lépp loo xamante ne dina ma ko moytuloo moom mi nga xamante ne ndaama la man ma nekk njool maa ngi koy moytu waaw maa ngi koy jàng aussi eh, mais li ci ëpp nag mënu ma ko exploiter instant bi yee eh, damay bàyyi ba le premier août. ba le premier août waaw. mais fekk nañu ngay def science boxe dafa mel ni xeex nga gën a favoriser ci combat bi moom nga indi quoi. ah non non bëri ñu wax. bëri dóor parce que man dama am opportunité boo xamante ne am naa opportunité xeex et moo tax chaque jour même bu nekkul combat bi dama koy liggéey lu bari waaw peut-être nit ñi xamuñu ma si quoi waaw looy wax ci adversaire boo xamante ni moo la màgg ci làmb jiitu la si làmb nga bëreel ko combat préliminaire ba noppi war a bëreeg moom tey grand combat ah lu dul di koy remercier rek di koy remercier di koy wax ne mbër bu mag la mbër la boo xamante ne àdduna ñëpp ko nangul mbëram mhm. waaw waaw. waaw mais Siteu ñu ngi lay nuyu di la ziar te gis nañu tey macha allah jàmm rek ñu si ginnaaw mais keroog ba ngeen defee seen face à face keroog Iba Mar donc dégg li mu wax dafa ñëw waat si yàlla da lay daal loolu lan ko dundee. waaw loolu nag loolu nag ni ma ko dundee mooy man damay ñaan si yàlla. waaw moom mi waat nag li tax mu waat moom moo xam waaw man si yàlla laay ñaan. parce que yàlla moo yor lépp yàlla moo moo moom jaamam ñun lu ñu dem dañuy sabab lu def rek mais xamuñu sax nañ fekkee suba waaw kon moom bu mu ne xam ne day fekkee bis ba mu a waat si yàlla ne waat ne moom daf may daan loolu moom la concerné mais man maa ngi woo samay mbokk di woo samay mbokk séeréer yëpp laaw fooree séeréer nuwaanaa leew séeréer mi koyam nag combat fani ko tam-tam siktam am yo ɓiyo séeréer refuno to andim ka refer ne njom kon séeréer fof mi komten geno allah billahi wallahi waltaala e mafta maaf min mi heɗano royal no arno séréer andi joom loolu mu ngi li ma wax mooy maa ngi woo sama mbokk séréer parce que ñun ay séréer lañu waaw ñu xam làmb lool mu làmb lool waaw te ñoom lépp luñ soxla si làmb yaakaar naa li ci ëpp si séréer lañ koy tijjee kon mënuñu yaakaar ba pare bëgg ñu yàpp man gëmuma loolu waaw man damay wax ne man séeréer laa doomu séeréer laa ci ndey ci baay waaw di leen woo ñu ñëw jàppale ma waaw moom yaakaar bu mu am ba waat si yàlla man tamit yaakaar boobu laa am ba ñaan si yàlla woo samay mbokk ak képp koo xamante ne mun nga ma ñaanal woo naa la di woo sama sëriñ seen si di Mbàkke alxuraan maa lay woo nga ñëw jàppale ma si combat bi. ma dafa am benn question mooy dugal parce que dañu gis moom ci entraînement dañ fa gis muutloo mais bi loolu ba tey maa ba maanaam ngeen feeñ bi Modou Lo feeñ foofu ñi jàpp ne Modou Lo da ngeen am ay relation yoo xam ne c'est humain maanaam loo xam ne deret la moom Papa Sow ci suba ñu liir ko ci journal suñu lamb wala les arènes mu ne Modou Lo yoonam ñëwul ci combat bi parce que moom yàgg nañuy ànd di liggéey kon yow ak moom kese yéenay nekk ci géew bi maanaam loolu wax boobu nga xam ne judd na nga gis Modou ci ginnaaw mu ànd ak moom ñu bokk di liggéey mais moom jàpp na ne loolu liggéey ba la rek mais bu bés ba jotee waaw loolu du ma ci débat du ma wax si loolu parce que lim la wax noonu loolu moo am waaw relation yi ñu seeg loolu nit du ko dindi waaw te nit moom tey yaakaar naa ne doo tàgg nit ba pare suba nga xalab ko waaw man gëwuma loolu man si Papa Sow laay wax waaw maa ngi ñaan yàlla yàlla may ma ndam. mais dañu interroger Tarkinda yi benn vidéo mhm. la majeure partie ko Siteu man bor laa ko lebaloon. waaw mais xam nga xam nga xam nga tarkindaa yi nga wax xam nga fans yi nga wax kenn ku si nee dangay waxee li ne sa xol ni nga xalaatee ni nga gisee mais indi ñu bari dañuy gisee nit ñi ànd mais wala ñu gis nit taxaw nit mais xamuñu mais ñun li ñu gëm gëm ko gëm ko mooy combat bi man sama xol laa ci demee sama gëm-gëm laa ci demee bis bi moo ma jaral gisuma kenn ku dul Papa li gën a euh, garaaw mooy Pape dafa insisté ci benn question. seen deuxième face to face bi nga bi la ji li tëggalee nga siif wàcc ñu fecc bi mu jëlee micro bi dafa ne sant naa yàlla mu ne ko lu tax mu ne li ma foogoon ci Siteu gisuma cela veut dire que li ma foogoon ci moom psychologiquement physiquement mentalement moralement gisu ko ci yow. donc jàpp nga ni que am na benn longueur d'avance waxu mbër la waaw du yéen loolu waxi mbër rek du yéen gis ngeen Papa Sow du maa ngi nii taxaw gis ngeen ma waaw kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek du dëgg waaw man xale laa di liggéey li ma gëm maa gëm man nekkuma fi xam lu ma la di expliquer nii wala naa man bu ma sumbeekoo mu sumbeeku waaw man samay tànk damaa xam ne man moom bu ma feccee mu xool samay tànk moom ay tànkam nan la war a mel ah, ah xaw ma ko man mi yëdduwuma loolu man ndam li moo ma ndam li moo ma intéressé mooy indil ko sama waa gox indil ko samay nit indil ko samay am di jàmm waaw loolu daal moom ma intéressé beneen bi ma ciy tegaat mooy damay woo samay mbokk jàmm gën ak li ko wër banlieue bi yëpp maa ngi leen di woo di woo Lamsar Thiaré Azir di woo la jàmm gën si Kambaaw sam-sam waalo waalo yi mu turee combat bi maa ngi leen di woo di woo sama mbokk pël yi waa fora sama papa yi aw ma seen fay waa fora maa ngi leen di woo waa mbaar ya ñëpp maa ngi leen di woo di caare géej bàyyiwuma kenn woo gox bi parce que maam serafal gétti beeg ñëpp maa ngi leen di woo Fass Mbaaw bàyyiwuma kenn guy ga maa ngi woo ñëpp sam-sam tali maam jaara sama koñ yaay képp koo xalaat ne rek woowu ma la rek maa ngi lay di woo sama fans club bi nag di woo waa Gambie Gambie man foofu laa waajalee sama combat bi. waaw. maa ngi leen di woo Gambia people yëpp maa ngi leen di woo. waaw sama fan si club bi fa nekk ñëpp maa ngi leen di woo. di woo waa Daaru bi mu dëkk. waaw. a baax man ma lay laajee rek sur euh, si aspect ak niveau combat bi xam nañ ne combat au niveau la sa adversaire professionnel la am na fu mu jaar tey ba mu yow tamit professionnel nga nga wër àdduna est-ce que tey carrière bi nga xam ne def nga ko à travers le monde. am na lu mu la may pour combat bi nga xam ne dafa am doon tey. comme nan. comprendre moom. maanaam sur le plan professionnel. waaw sa jaar-jaar li nga def ci MMA yëpp façon préparation yi nga xamante ni découvrir na ko ak façon euh, sport bi nga découvrir ak mhm. sport de combat. combat bi combat bu am niveau la bu am dayoo la est-ce que loolu may na la tuuti benn expérience parce que Siteu nee nañu woon des na ko tuuti expérience pour mu gën a professionnel. waaw may na ma opportunité bu bari opportunité bi ma may mooy moom lu mu dajale wër teg ko si ginnaawam. man xëy na may na ma ko physiquement man benn may na ma ko sama derrière parce que moom pour man amul amul kenn ku nekk si ginnaawam si wàllu bëre man ku ma amul. amul kenn ku nekk si ginnaawam ci wàllu kilifteef man bu ma amul kon leneen des yëpp pour man communication la rek xam lu ma la. waaw man gëwuma loolu li ma gëm mooy dem indi làmb. mais si côté communication dañu gis ne si ñaar interface yi mujj da nga doon daw communication bi ci sax da nga teel a abandonné bàyyi lan moo waral lool. non parce que faay chaque jour foofu lay jógee. foofu lañ jógee parce que ñun dañoo nekk si dëkk boo xamante ne nee nañ buñ la buñ la buñ maanaam buñ la utee ut ut ut xamuñ fenn fuñ lay jaar dafa am fuñ lay ñox xamoon xaw ma ñoppatu lañ koy wax xaw ma na lañ koy wax mais pour man affaire bi jaratul wax. parce que liñ doon wax yëpp wax nañ ko di des bëre la ñaan yàlla yàlla suñu borom. waaw man loolu lay wax. mais mais man dinaa la laaj leen parce que loolu yàlla def na ko ci côté popularité. Mhm. mbooloo moom kenn du ko wax di wax Siteu tey mbooloo mi lay topp parce que gis nañ ne par rapport ak at yi am ak say génération. defe naa ne yaa ci am opportunité bëre stade Léopold Sédar Senghor. ci mhm. combat bu mag. waaw muy sa diggante ak guy gi. bés boobu bi nga ñëwee keroog Léopold Senghor li nga ko ci mbooloo bari na. mais nga ñàkk combat bi am na ñu xam ne dañ ne da nga manqué woon concentration. yaa ngi dégg et puis jàppoon nga ne tamit dafa am xeex daf ci amoon ak yooyu est-ce que tey li Pape màgget ba laaj léegi parce que dañ lay gis ci sa communication depuis boobu ba tey Siteu dafa gën a dal. dafa mel ni daal dafa am lu mu jàngate ci li mu jóge woon ci diggante ma guy gi ba tax tey mu mel ni ci loolu lay rebondir ci ni muy waxee ak ci ni muy doxale même entraînement bi ñu gis ngay def fii sax nangu woo dégager lu bari daa am looy nëbb wala. waaw koo gis si àdduna am na lu muy nëbbu li may nëbbu nag yàlla naa ko wone le premier avril. Mhm. waaw pour le premier le premier août. waaw ok léegi beneen bi may wax mooy. Mhm. maa ngi woo sama fans yëpp maa ngi leen di sensibiliser. yaa ngi dégg non parce que parce que li ma laaj daf ma ko laaj pendant trois fois que quatre fois yaa ngi dégg léegi man li may wax mooy sama fans yëpp laay sensibiliser. wax ne maa ngi leen di woo si jàmm di leen wax ne non violence laay woote non violence laay woote. parce que xam nga xam nga xam nga ay ndaw di topp sa ginnaaw man ay supporteurs xale laa am te ñun ku xool fuñ dëkk ci banlieue nga xool suñu fugg xool ni ñuy doxee automatiquement gisé nga ñu mais li ne suñu biir xool xamoo ko. am na ñoo xam ne dañuy gisé bu baax am na ñoo xam ne dañuy gisé fu bon mais loolu yàlla dong moo xam. mais wax képp kuy autorité na jàppale ñu si ndaw ñi may topp ndax parce que ndaw bu ñu noot wala ndaw bu ñu gaañ benn xale man sama combat bi passé ba léegi amul benn man pour man journaliste bu bëri trouvé wuñu lan moo tax sama combat ma perdre ko parce que dama gaañu blessure boo xamante ne mais pour pas loolu duñ ko wax te loolu dama ñëwoon pour sauver lamb mais ci biir sauver lamb boobu si la ma yàlla xañ man nangu ma gëm xam ne jaam dong laa yaa ngi dégg man nag ndaw laa xëy na yàlla mënu may lépp waaw. yaa ngi liggéey mais papa dafay mbër moo xam ne dafa agressif ba pare gaaw naa ne xeex bi mu lay waaw wax naa ko léegi yaakaar naa ne sóor moom loolu kenn waxatu ko yaakaar naa kuy liggéey xam nga benn question boo xam ne bu ko bëggee répondre pendant fois day bari te man bu ma sañoon dañuy tënk rek ñu ñaanal de ku nekk dem du dëgg. waaw waaw man daal li may wax mooy li may insister mooy mooy sama supporters yi yee ñu jàppale leen xam ne ay ndaw lañ kenn ku ci nekk lamb bi tamit pay-per-view lay doon. waaw senafis.com lay daw. mais léegi dama bàyyi ma wax samay supporters man ba pare. waaw samay supporters laa wax maa ngi leen di sensibiliser. di leen woo si jàmm di woo non violence laay wootee. non violence ñun xamuñu lu bon doxuñu si lu bon ñun làmb yi ñu nekk mooy suñu àdduna ci la ñuy ñaan yàlla tedd ci ci la ñuy ñaan yàlla dimbali suñu am di jàmm suñu famille képp ku ñu yàlla booleel du dëgg waaw kon ñoo ngi leen di woo si jàmm di wax ne képp ku gis ndaw wala nga nekk homme de tenue na nga jël xale yi leen ñu ñëw si jàmm dal si jàmm am ndam jàmm si jàmm ma loolu laa wax question bi loo koy wax waaw promoteur bi lan nga wax waaw ah, di nga ñaanal réussir rek non métti na yàgg na mais yàlla ak ay mbiram noonu la demee du dëgg waaw kon nañ gëm rek am yaqin rek waaw di ngay ñaanal moom gëm-gëm bu mu am ba suñu borom defal ko lii yàlla na am gëm-gëm boobu leneen ak leneen ak leneen ñëw si àddunaam du dëgg waaw maa ngi sant ñëpp seen affiche mooy combat wala war a seetaan combat bi ku ko bëgg fa ngay dem jënd paas seetaan ko sur com. seen affiche com maa ngi jox ndaje ñëpp képp kuy supporteru Siteu Tarkinda maa ngi lay woo nga ñëw seen affiche point com. waaw nga jënd fa code bi. Mm-hmm. waaw for life mais bëgg naa leen ne yéen journaliste yi. waaw bëgg naa leen bu baax.